del wéy di abonné tey laal cloche bi jaajëf wa tuuri wa kitaabi mastuur daa way laay yu nekk si njëlbeen gi bëgg laaj firi meeg tawil bi mu fasiroon dañu xaw a wuute ci yenn yenn baat yi waaye tafsir yi moom nii koy firee bu dee wattuur baat yu njëkk yee njëkk yëpp yëpp nag suñu borom day waat rek di waat ne wat tuur nag maa ngi giñ ci doj bi nga xam ne ci la wàqante woon ak Muusa lépp noonu lañ koy firee muy jabalu tuur wa kitaabi mastuur mooy giñ ci téere téere boo xam ne dañ caa bind ci aw kayit boo xam ne dañ ko tànnal mooy fii raqin mansuur bind ja téere boobu nag mu waat dañuy wuute ci tawraat la wala alquran wala lawxul mahfuz ci xaw a wuute waaye lu ko ndax da caa waat wal baytil maamuur baytul maamuur bu façon dañuy wax ñu bari dañuy wax ne bari dañuy wax ne ma nga ca asamaani ñetteel wala juróom-benneel wala juróom-ñaareel nga xam ne day xaw a mel ne kaaba gi moom nag al bayt mooy jëmmi néeg ba daa wax al maamuur mooy néeg boo xam dañ koy dundal comme ni ñu def kaaba gi di ko wër bis bu ne ay junni junni di ko wër moom dañuy wax ne bis bu ne baytul maamuur boobu bis bu ne juróom ñaar fukki junni malaaka ñoo koy dugg siyaare ko wër ko julli fa te malaayika ko duñ ñëwaat mukk bis boobu jàllee yeneen malaayika koy ñëwaat waaye du ña ñëwoon duñ ñëwaat loolu day wane kon barik malaayka yi la ca topp mooy wasaqfil marfoo loolu mooy asamaan rek asamaan si ngay seen mooy xadd ba bu yëkkati ko bi wa jaal na samaa saqfa mahfuuda la ca topp mooy wal baxril masjuur mooy géej yi nga xam ne dañoo fees dell akum ndox ba ndox may fuur baat yooyu yëpp nag ay waat la suñu borom moom moom rek moo sañ a waat ci leneen waaye bu dee bindeef sañta waat ci lu dul yàlla kon waat na ci wa tuur leeral nañ ko wa kitaabin mastuur fi raqin manshuur wal bayti al maamuur wa saqfi al marfuu wal bahri al masjuur la muy waat nag mooy inna adaaba rabbika la waaqi maa lahu min daafi mbuugalum yàlla faw mu wàcc ci ñu ko yelloo amul dara lu ko mën a téye loolu loolu lay waat baat yi ma tegal yëpp di waat loolu la bëgg a waat inna adaba rabbika la waaqi maa lahu min daafiq noonu laay bu metti la ndax dañuy wax ne boo demee ci addahabul ibris ca tafsir ba mu naan jubayr ibnu ibnu mutahim daa bokkoon ci yéefar ya nee na bi xare badar jàllee am ñu jàpp ci yéefar yi yonent bi am ñu ci jàpp damaa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg wax ak moom mu ma njëkk ci suñ mbokk yi mu jàpp mu fekk mu jul di jàng wa tuur ba kitaabi ci inna adaaba rabbika la waaye neen sama xol bi xaw mu xar ngir tiit gu ma saase saase saase